monsieur le ministre Sénégal yokk nañ ceeb bi yokk dëwlin yokk suukar yokk farine yokk courant bi yokk ndox mi yokk pétrole yokk gaz kon fa commerce bi doxe man mii taxaw di wax ak yow ab commerçant la commerçant bu ndaw laa tàmbale ba nu may dem commerçant bu di importer nag fu ne ci réew mi Mali laa tàmbale 93 laa yéeg bol dem Jakarta laal 2000 ma dem Dubaï loolu mën a fi ma kenn mënatu koo am ndax dëkk bu metti loo jaay du jar ambalaankat yi ci mbedd mi sonn nañ commerçant yi sonn nañ soo importé indi sa conteneur boo ko génnee doo gis ku ko jënd ndax dëkk bi amul xaalis yàlla am jàppale commerçant yi sa conteneur bu nekkee ci poor bi bala ngay dem bay fay fay mass line wala nga del mas bala nga koy fay da nga daw daw daw daw daw bay bëgg dé dee walbatu ki dik ci port balé secondaire ak nga son jigen nga xam nga li ci jigen xam nga li ci dom ak sun ambulankat ci mbedd mi di wax ci doléance nak commerçant yi nga xamné ñoo Touba ca lakalé won dikon ngeen fa am li ngeen leen dig ba nëga ni gisuñu ko ndax bi ngeen ñëwee am ngeen lu ngeen fa indi am na lu leen sëriñ bi dimbale waaye da ngeen na woon di ngeen leen defaraatal marché bi dolli seen commerce ban am ci luñ jàpp booba léegi ñu ngi toog rek di xaar seen bagage yépp lakk na seeni magasin lakk na amatul dara ci luñ jàpp surtout ambulant yi ci mbedd jàppale leen commerce bu njëkk dafa neex boo chargé boo dikkee jaay yaay jaay petit commerçant bi petit commerçant bi jaay ambulant kat bi loolu mënut a ne douane bi cher na madame la ministre dëkk bi metti na foo laal dañ metti xale ba ca Fuuta dana Sénégal Fuuta tàmpi waaye man de dama naan Sénégal moo jaan